nettalib téeméer bi ak fukk ak juróom-ñeent ci la ñuy ñëw am na koo xam ni borom wilaaya la woon lool daa mësa ñëw njaarim ci sëriñ Touba xaadalawo law maxtaara lawo ni ko yow laay siyaar si sëriñ Touba xaadalawo law maxtaara lawo ni ko mas ngaa dem Touba mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko kaay dem ca ba dikk door a tàggoo mu dikk Touba am fi ay fan ba mu delloo sëriñ bi ni ko loo fa gis mu ni ko yaari yëf laa fa gis ñama fa fekk ñépp dëkkuñu fa waaye ña fa dëkk ku faatu suba dem aljana ko faatu ngoon dem aljana sëriñ bi ni ko li ñu doon wax ci yow dëgg la maa ngi ko xamee ci loolu nga gis loolu day gën a dëggal loolee mu waxoon ni ku fi dëkk sag tàbbi aljana aju aju ko ci sag jaamu yàlla subhaanahu wa taala bu loolu jàllee war nañoo xam ni jaam ji sunu boroom subhaanahu wa taala da koo bind ngir jaamu ko kon ku nekk war ngay jéem a xam jaamu gi mu bëgg ci yow waxtu wu nekk nga koy fexee amal jamono ji nag mel na ni ku yabu jiital sopp Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar loxoo ci sag jaamu ak jàng ay daam door caa teg loo cay teg walaaw alam